sooy wax fi nga xamante ni moo am koom-koom fi nga xamante ni doomu Tëngéej ji fi la ñuy ñëw di daan seen doole mooy marché bii tey nag ñëw nañu ci marché bi marché bi nag nekk na marché boo xam ne xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax fii la ñu juddoo fii la ñu màggee man fii mooy suñu kër gis nga fële fi mu taxaw ndaw sale fi mu taxaw foofu moo doon suñu kër de 1975 à 1983 fii la ñu dëkk sam fii la doon liggéey tous les jours ci marché bi lañ doon dem ñun fi lañu maggé màggee xam nañu fii bu baax waaye tay li Baye morfal organisé dafa am solo parce que dafa nañu ñew leen ñu visiter marché bi waaye visite bi nak c'est une visite guidée une visite opérationnelle une visite de terrain ñu dem dem fi ñuy jaayee jën dem fi ñuy jaayee légumes dem ci centre commercial bi dem fi ñuy jaayee yàpp dem fi ñuy jaayee fruits dem syndicat fépp la ñu dem tey ci marché bi bi ñu demee nag wax bi benn la wax bi benn la waa Yewwi dañoo yeewu marché bi dañoo yeewu marché bi monsieur le maire Oumar Cissé dafa bund xatal waa marché monsieur le maire Oumar Cissé dafay persécuter waa marché persécuter ambulant yi persécuter jaaykat yi te li doon xaar ci maire yi gisuñu ko ndax marché bi salte na marché su fekkente ne dafay produire ay impo marché su fekkente ne ñi dañuy fay juuti commerçant yi dañ leen war a organiser marché bi dañoo war a defar marché bi ba mu set loolu nag nga xam ne tey dafa am fii ci marché bi ñuy persécuter commerçant yi leen yàqal seen liggéey loolu duñ ko nangu te liñ fi gis yépp dinañ ko wax président de la république Macky Sall ne ko su fekente ni maire bi su fekente ni maire bi warul limu wara def deful limu wara def di xatal commerçant yi top towul marché bi su boba nak état nak état nak moy jóg nak pour protéger commerçant yi état nak moy jóg defarat marché bi ko xamanteni nak ko xamanteni nak maire rek la par défaut maire par défaut parce que ñun ñoo ko raw fuuf amul sax 22 nous cent ñun ñoo ko raw ñun waa Benno Bokk Yaakaar nous àndul woon rek waaye ñoo ko raw fuuf loolu moo ñu ensemble ngeen gis le maire Albendoy à nos côtés gis Doudou Meissa Wad à nos côtés gis ñoom Lamine Diop gis ñoom Arona Sar, gis ñoom Séga Ndoye gis ñëpp ñëw ñu ànd parce que nous gis ne erreur mon amoon erreur mo amone bay wa Yewwi Askan Wi gagné fi. erreur mo amone ba nga xamanteni ni Cissé nek na fi maire ku nek maire nag ngeen sonn bis bu nekkee député maire nak xawma fo foo leen jëm motax bu leen botel Yewwi Askan Wi Benno Bokk yakar président Macky Sall dafa am un programme de modernisation des marchés président Conté wul ci maire yi ak collectivités locales pour pour to marché Dédé.